tey nga jël ki nga xamante ni mooy Boy Niang numéro de mën nañu ne depuis nga euh, feeñaat Boy Niang daan Balla gay sa staff wala boog leen ci sa staff ñoo jëkk a laaj ki nga xamante mooy Boy Niang déclaré pour bëgg a ak moom te dañuy gis ne toujours fu Balla gay échec rek Modou loo day ñëw bëgg fa réussir comprendre nga bu baax a baax Boy Niang euh, ñu gis ne combat bi euh, fi mu yàggee daal ci ci ci yow la daal lan moo waral loolu bi vrai que ne yéen a ngi doon da ngeen di waxtaan ci seen biir euh, ak euh, nu mu demee noonu lu tax bo toujours Modou day sawar ci koo xamante ni dafa daan Balla gay ndax yaa ngi ciy bàyyi xel Modou Lo. Modou ah, ci oustaz bi parce que ku nekk moom bëgg nga am xam-xam bay bay jàngale. xëy na ku mën taxal la mën Quran waxal la boobu ñi gënal yàlla mooy ñi. jàng ba pare di jàngale. yàlla na ma yàlla may xam-xam bu ma jàngalee. loolu sant yàlla la ko quoi. sukran lakk. alhamdulilah ak lu ci togg woon sax. waa dañu gis ne euh, bi Boy Niang génnee ci Balla Gaye numéro 2 daan ko len ci sa staff walla ñu la jege dañu gis ne euh, gis nañu ñu gën ne bu bu ñu leen joxee Boy Niang ñu jël ko. parce que man tollu ma ci làmb fu may toppee benn mbër wala di benn mbër defe naa ba tax na. tey dafa bëre def exploit il semble ah. nit ñi xam ni làmb bu jaadu la rek mais pas may taxaw di laaj boña wala su may saaf non dañ leen ci laaj xam nga buñ ci tombee d'accord mooy loolu. te combat la sax quoi moo tax. dafa def ay preuve am ñun tamit ñu bëri ba am fu ñu yegg làmb boole ñu ñu war a bëree. lu tax ngay sawar ci fu Balla Gaye échec. non loolu yaa yaa ci bàyyi xel man bàyyi ma ci sa xel wax dëgg yàlla waaye amul naan tombé waral ay gaaf bàyyi ma ci vraiment. Boy Niang waxaale bi yàggoon na torop mën nañu ne ci yow la gën a yàggee est que xam nga ne Modou Lo dafa sawar ci koo xamante nii euh, dafa daan la yaa ngi ciy bàyyi xel. waaw maa ngi ciy bàyyi xel mais dama gis benn affaire boo xam ne yéen a ngi koy wax il faut que ma wax ci le fait ngeen di woowee Modou oustaz xam nga ku nekk moom am nga droit wooye nii du ko neex waaye àddina ñu ñëpp ay jullit lañ te ñun ñëpp dañ bu ñu sañoon dañuy wooye oustaz. parce que ñun dañoo fonk diine man man mi ngay man mi ngay gis nii boo ñaa man nitu daara daa man su may ay maam su ma ay nijaay yëpp ay xaafis waxul ànd lañ waaw donc nag man nitu daara donc diine dafa am solo diine avant sport sport bi après la war a ñëw donc loolu moom pour gars yi dama ci bëgg dama bëgg bàyyi xel loolu rek parce que bu ñuy woowee Modou Oustaz wala ñu bu fekk koo féete rek diine bi dafa mel na ñun bokkuñu ci ñun ñoo bëgg gën a bëgg diine bi fuufu ñun dañuy waaw ñun dañuy dañuy dañuy jaamu yàlla teg ko ci yoon xam ne lépp bu jeexee suñ borom moo fi nekk donc doo bëgg ñu bàyyi xel bu baax a baax ñoo dàq julli fuuf <laughs> wóor yàlla <laughs> noonu la demee beneen bi mooy comme li nga wax rek yàlla dafa dogal ma jóge ci Balla mag Modou làmb moo ñu boole rek làmb moo ñu boole ñu war a bëre boo xoolee rek ba bëree pare rek dafa fekk yëpp ak amaatul làmb yëpp dañ bëgg suñu combat parce que combat bu neex la maanaam moom yëpp ay bërekat lañ waaw moom mooñ tàkk bëre sax mais ñun ay xale lañ ñu ngi jàng bëre waaw waaw te yàgg nañ ko gis muy bëre te xam nañ bu ñu bëree bu ñu wuree na neex trop te xam nañu combat bi nañ xeex nañ bëri amateur nañ kontaan parce que loolu lañuy xaar si ñun man xam naa ko bu baax li amateur yi xaar si ñun xaw ma nag mbër ba am xam na ko bu baax waaw gars yi dañuy wax ni combat bi du combat de négociation de dañuy bëre dañuy xeex incha allah moom lañ ñëpp di xaar si ñun ci kàttanu yàlla incha allah